ay euh, diwaanu Ziguinchor donc loolu lépp également joxe na sax ay chiffres par rapport ak ñi nga xamante ne euh, jàpp nañ leen fii ci Ndakaaru ak tamit fële nga xamante ne également moom mooy euh, ca Ziguinchor cinquième point mooy la position de religieux nga xamante ne jamono ji yëpp askan wi ñu bëri ñu ngi koy sàkku na sëriñ si wax na sëriñ si wax lan mooy seen position ci mbir mi daanaka leeral na ko lu bëree bëri wax na ci ne ñoom ñu ngi ciy dox ay jéego naam mais nekkul loo xamante ne ni ñoom ay régulateurs sociaux lañu donc loolu tam mën nañ ko ci sixième point euh, bi ñu mën a jàpp ci déclaration bi mooy li mu tuddee immixtion du procureur de la république dans sa vie privée loolu tamit également euh, na ci wax na ci précipitation enquête maanaam euh, gaawal bi nga xamante ne dañ koo gaaw taftafee bi ñu taftafee l'enquête bi loolu tamit également yëkkati na ay kàddoom wax lu jëm ci loolu wax na tamit également lu jëm ci espionnage yi daanaka bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom tous les sénégalais sont en sursis ndaxte ñëpp ñu ngi leen di déglu di leen mettre sur écoute ci anam yi nga xamante ne doon dund yoon la ko doon diglee ñëw na également ci li nga xamante ne moom mooy complot maanaam joxe ay firnde yoo xamante ne day dëggal wax ji nga xamante ne ñu bëri ci seetlukat yi observateurs yi gis nañ ne mbir mi kat euh, ab complot la ba ci daje bi nga xamante ne war na dox wala dox na ci diggante ki nga xamante ne moom moo koy tumal di Adji Sarr ak njiitum réew mi yeneen mbir yoo xamante ne daal gis na euh, yi nga xamante ni tijj nañ ko yëpp double objectif bi nga xamante ne euh, moom lay mooy rajo ko sur les listes électorales ba njongante yi ñu njiitu réew bi war am 2024 du ci mën a a bokk li nga xamante ne moom mooy yàq deram ba li nga xamante ne moom mooy estime bi nga xamante ne am na ci askan yu mu nekk loo xamante ne daanaka du luy dañ la alors donc ci fukki tomb yooyu daal mën nañ coo tënk déclaration président Ousmane Sonko bi nga xamante ne yëkkati na ko laata muy dem wuy ji fële nga xam ne moom mooy juge bi suba ci àllarba ji te wuy ji boobu lu ne mën na cee xew lu ne mën na cee xew gis nañ ne Khalifa Sall ba mu demee wuy ji ñibbiwul këram fa lañ jaare rek juge bi daal di décerner li nga xamante moom mooy mandat de dépôt mu daal di dem rëbës ba keroog bañ koy atte ak ñeneen ak yeneen yoo xamante également jaar na fa nga xam moom mooy euh, kaddu euh, euh, yi parce que point yu bëri président Ousmane Sonko yëkkati na ko mënta ñàkk ñu taxaw ci def ci ab taxaw seetlu te bi ci jiitu rek mooy la principale information moo di suba ci àllarba di dina dem wuy ji li nga xamante moom mooy convocation day tax ñu tijji ab dossier ci biir dossier bi ba mën koo tuumaal li nga xamante ne moom mooy euh, rébellion maanaam jëngu ci kaw ay alkaati dem na sax bay leeral ni ba ñu wujji convocation du délit loolu moom maître Tall laa ciy laaj euh, nu mu gisee wàllu boobu en tant que juriste ah, ko xam ni xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllub yoon. waaw jërëjëf Pape ma lay gërëmaat ci invitation bi ak question bi ma posé Pape nga may ma rek ma ma gërëm Ousmane Sonko ci tey ji li mu wane ci auteur. xam nga boo déggee ni mu waxee ni mu ànd ci ak dal ànd ci ak beaucoup de sérénité kàddu yu leer nañ wane ci ak mat nga xam ni kon moom jàmmi réew mi moo ko tax a jóg parce que wax na lu am solo nee na gannaaw ma si waxtaan ak samay avocat ñi nga xam ni seen xel dafa màcc yoon waxtaan ci ak ay ndawal kilifa diine yu ñu yónni waxtaan si ak ñi nga xam ni si wàllu chrétienté la muy Abbé Jacques Seck société civile waxtaan si ak mouvement yu bari ñëpp ñaan ko mu bàyyi li mu jàppoon yëpp ngir jàmmi réew mi dem uy ji yaakaar naa loolu nit ku mat moo mën def noonu ci ay concession parce que pour répondre si sa question ñàkk dem wuy ji du délit. ah du délit. citoyen bu ñu convoqué am nga droit bañ a dem. nga droit bañ dem justice bi la convoqué kay moo doon ut ay pexeem naka laa lay jëlee maanaam jaay la dooleel la da ngay ñëw par force mais mosoo fee gis ki ñu topp ci yoon parce que dañ ko convoqué ñëwul loolu damaa bëgg mu leer kon droit la ci nit bu ñu ko convoqué parce que lu bëri mën na mën na expliquer li tax ñëw lu bari mën na nekk wérdi mën na nekk sax danger imminent mën na nekk sax ñu tegal la piège nga comprendre yëpp nga ni dew ma mën na nekk tamit ci say droit maanaam nga ni c'est parce que jaarale wuñ fu ñu war a jaar ma bañal leen ñëw bi mais quoi qu'il en soit ñàkk uy convocation loolu droit wu nit ki la maintenant comme justice dafa am doole yoo xam te ni permettre na ko ku bañ mu dem jëli ko par force yaakaar naa moom ñëw àdduna ci li amaat solo te wax na ko ci biir discours bi xam nga boo gisee mu ngi revenir ci teesu complot bi ci léegi leer na sénégalais yëpp je pense que foofu tamit da may may rek ma rendre un hommage mérité à vos confrères journalistes parce que daanaka presse bi moo ko atte dossier bi voici un dossier qui est digne d'un sans suite tey jii bu ñu demoon ba xaar si justice sax ñu naan ubbil information le juge d'instruction amoon na cette possibilité de rendre une ordonnance au fin de refus d'informer maanaam ne man informé wu parce que gisuma fi lu may lu may saytu parce que lii dara nekku ci may nañ ko tamit yoon may na ko bu mu ubbee information dem ba gis ba si cappaandaw ga mu def une ordonnance de non lieu ne gisuma fi lu ñu war mën a topp yaakaar naa li mu wax sànq am na solo nee na 90 pour cent des sénégalais man sax dama si dolli 99 pour cent des sénégalais ba si ñi nga xam ne sax ñoo teg complot bi ñooñu ñu àndal si seen i ñooñ xam nañu mbir mi complot la parce que man ma ko waxee am naa ci lu leer nañ parce que man am naa ay nit yu bëri ñi nga xam ci biir nguur gi lañ nekk nekk biir APR mais dañuy ñaawlu sax complot bi ni ñu ko defee parce que ko defee sax moo ñaaw euh, Pape nga may ma ma ma marqué sama désolation si côté boobu je pense que Sénégal ak Sénégalais yi mérité woon nañ yeneen débat yu dul li nga xam ne day wàcc si ay complot ci mbir si anam bii ak ci mbir mii mu mu ne wàllu mërs Senghor jaar na fi bay na wàllam ci si tool bi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade ak loo ko mën a waxal am na li ñuy xam ne mosu ko franchir du fa yegg yaakaar naa Abdoulaye Wade dem na ba jóge fii soo dégg ñu ne rajo nit rajo radiation c'est vrai que peut-être posture avocat bi ak droit de l'homme bi mu doon xam na li ci rajation fekk nit muy tedd fenn di fa jub yor fa ay nit ay famille yaakaar ka nga ñëw seppi loxoom di ko wan ni je peux faire mal et je vais très mal yooyu musu ko franchir. mais wax encore une fois sénégalais yi méritoon nañ débat politique bi. ñu orienté ko ci leneen ñu orienté kon ci ci ci ci politique économique ci bonne gouvernance ci transparence ci ci liberté publique ci état de droit je pense que loolu moo moo ñor sénégalais yi mais pas ngay dem sa adversaire politique ngay daw jàkkaarloo parce que wax na ci discours bi. Mhm. nee na Macky Sall ñaari objectif moo ko tax a jóg Ousmane Sonko carrière politique naka fi nekk ci fi yemale. beneen bi Ousmane Sonko daram naka lañ koy gàkkale je pense que Ousmane Sonko loolu yàgg na ci àddu yàgg na ci wax yàgg na ci alerté maa ngi fàttaliku il y plus de deux ans ñu demoon ci benn meeting Kër Massar d'ailleurs ci meeting boobu ba mu jeexee si la gars yi boomoon sunu militante boobu tuddoon Mariama Sarr je pense que si meeting boobu waxoon na lu mel ni Mariama Sagna madame Sonko Mariama Sagna yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko aljana ay doomam tey nekk des pipis de Pastef ci meeting boobu taxaw sama bët ak sama fekke moom aka a may mu ni façon sos bu ne ñu koy def façon façon euh, complot bu ne ñu koy teg dem na si ba si dañu convoqué woon ay nit créé ay titre foncier ne leen dem leen ngeen Ousmane Sonko moom moom tiit foncier yi ay nit yu bàyyi kilifa ñu bañ loolu ne def nañ ko jéebaane nañ ko fu ne traité nañ ko fi di salafiste dem noonu ba si sax régime bi di yónnee ay nit si kilifa diine yi deen wax ni bu leen recevoir Ousmane Sonko parce que dafa contre tarixa d'accord euh, thèse complot bi dinaa ci ñëwaat léegi maître xam naa dinaa dem ci suñu alkaati yi ah suñu <laughs> gendarme ak yooyu ak point bi ñu wax ci convocation dinañ ci ñëw ay leeral ma bàyyi malal également mu joxe impression générale par rapport ak discours bi euh, merci beaucoup en fait je salue effectivement la grandeur de Ousmane Sonko parce que effectivement am na solo pour mu dem wuyu ci convocation bi solo bi ci njëkk moom mooy l'oreille attentive bi nga xamante ne jox na ko euh, ñi ñëw ñaan ko loolu muy la délégation religieuse muy également ses ses avocats yi nga xamante ne depuis cette affaire la ñu ngi taxaw pour défendre ko parce que xam naa ni dans cette affaire la ñi taxaw pour défendre Ousmane Sonko taxawuñu parce que enjeu bi xaalis la enjeu bi effectivement mooy que le droit soit di loolu déjà dama ci féliciter avocats yi te avocats yi am yooyu am na ñu ma ci xam parce que moi j'ai été dans des situations assez compliquées ci ay période électorale ci kenn ci avocat yooyu us euh, Khoureychi Ba bokkoon na ci samay avocat te bi muy ñëw di ma taxawal laaju ma dërëm Donc c'est pour moi une occasion effectivement de remercier tous ces avocats de Ousmane Sonko à travers la personne de Khoureychi Ba. Mhm. beneen affaire bi ma gën a marqué mooy euh, toujours di sukkandiku ci li nga xamante ne dafa ne moom du dina wuyu ci mhm. mooy effectivement dina éviter ay jàmmaarloo xew fa parce que amaana buñ ko doon jël si de force nit ñi nekk kër Sonko am na nañu cofeel ak pas-pas ci Sonko ba am na loo am na lu mu leen jaral am na lu mu leen di jaral donc en fait buy dem di wuyu wuyu ji c'est parce que effectivement il pense aux autres il veut xalaat na li il faut les préserver mm-hmm. d'un certain nombre de choses donc loolu lu ñu mën a éviter la li ñuy apprécier ci démarche bi mooy également àdduna ay concession la soxlawuñu di toll ci ay extrémité à chaque fois parce que extremité fii extrémité fee après toujours dafay mën na jur loo xamante ne ñaari camp yëpp mën nañ ko rëccu te ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ mais li ma gën a apprécier ci discours bi mooy euh, cette pensée forte que Ousmane Sonko a à l'endroit de tous ces jeunes qui sont arrêtés. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2012, 37 jeunes ont été arrêtés et oubliés dans les prisons pendant plus de trois ans. Il a fallu que bokkoon naa ci ñuy démarché pour ñu. pour pour ñu libérer leen am na ci kenn sax mu ngi tudd Assane Diop man prison laa xamante woon ak moom ñu nekk fa xarit bi mu takkee jabar am doom taawam man la ko tudde pour dire que effectivement ñoom c'était des jeunes de Y'en a marre ñenn ñi ay yëmbal ñeneen ñi ñu ngi dëkkoon ay Rufisque feneen ak feneen ci manifestation yi lañ leen jàppoon mhm. le 27 janvier bi ñu bi ñu waxee candidature Ablaye Wade bi ñooñu ñu fàtte leen fa pendant trois trois années et c'était très difficile mhm. pour nit ñi toppatoo leen pour ñu génn pour wax rek ni justice bi di fonctionner fii dans ces situations doomu baadoo la mhm. mooy nekk ñi nga xamante ne ñoo ci topp je voudrais lancer un message à l'endroit de cette jeunesse il ne faut pas que les gens soient intimidés par des arrestations dans la vie politique dans les combats de lutte pour des acquis démocratiques lu ne kaso daf ci bokk kaso daf ci bokk parce que xeex pour jot si sa àq ak yelleef wareef la pour wax ñi effectivement que les portes des prisons soient grandement ouvertes je reprends une expression boo xamante ne xëy na Ibrahima Sall dina ko xam lui qui est en contact avec les prisonniers caso du fees kaso du fees c'est important de passer ce message là mm -hmm. et aujourd'hui ce combat là le combat la jeunesse c'est le combat de la jeunesse c'est-à-dire c'est leur avenir qui se joue. d'accord xam naa parce que sans démocratie. développement du am. du am arrestation yu bëri yi dinañ ci ñëw léegi beneen point la mais bëggoon naa am avis major ak professeur Ndiaye par rapport ak point lié à la convocation xam nga émission balance tamit. Euh, hmm. aspect pédagogique bi da ciy am solo maanaam jàngal ñi nga xam ne xamuñu droit xamuñu yoon également euh, metre mi ngi koy wax léegi nii euh, ndax yéen nun ngeen ko gisee yoon mën na la woo am nga sañ-sañ am nga droit bañ a dem wuy ji est-ce que loolu également du porte boo xamante ne mën na indi ay malentendu ay incompréhension diggante civil yi ak takk der yi nga xamante parfois dañ lay convoqué moo xam convocation verbale la dinañ ci ñëw wala convoqué am na ñoo xam dañuy yëkkat sa téléphone rek man la inspecteur di ñëwal dañ la soxla fii wala dafa war a anam yu war a jaare également boobu point bu bëggoon naa ci am seen avis macha <clears throat> xam nga euh, bii passé dama la la xam nga yoo wax léegi ni la téléphoner xam nga ku la téléphoné daf lay wax euh, monsieur Kandji si monsieur daal dara mu ne est-ce que mën nga jaar commissariat parce que am na affaire bu la concerné les gendarmes ñoom ci convocation la ñuy yem mënuñoo def leneen juge yi ñoom ñooy mën a convoqué joxe mandat de comparution muy genre convocation bu ñuy jox mais juge bi mën na convoqué nit koo xam ne inculpé guñ ko amul wala amul dara lu mu koy toppee wala dara wala témoin la mu convoqué ko comme juge bi mën na jox nit mandat de comparition su la joxee mandat de comparition léegi day bind ne ci suuf ne in ne boo comparaître dama lay délivrer mandat d'amener mooy lii comme Ousmane Labié kon su ma la déggee alkaati bi tak muy police wala gendarme bu ñu la convoqué nga bañ a dem du ñoom ñoo la war a jël si il faut ñu référé ci juge non non gendarme ak policier bu ñu la convoqué ci ay fait bien établi nga bañ a ñëw ñoom dañuy continuer seen enquête bu ñu la waree jàpp ils viennent te chercher c'est comme ça que ça se euh, passe. merci euh, maa ngi gërëm ñëpp di wax ne je suis vraiment réconforté parce que ba wax ji commencé ba léegi li ma doon wax finalement fi la Ousmane mujje j'ai toujours dit que il faut que moom mu dem bañ a dem nekkul solution parce que àla kuliyal jàkkaarloo day am comme nag euh, def na ko ay avocat ñoo ko ko digal vendredi ci guddi moo ci mujj mooy sama dernière wax bu ma mujj wax ci affaire bi mhm. dama ne woon bu fekkonte ne man dama nekk di xelal Ousmane dinaa ko wax ni ko soxlawul résistance soxlawul dara jógal nga dem nga wujj kilo ki woo parce que jàkkaarloo dina am te du mën a ñàkk am bu ci leneen duggee lu dul jóg ci sa teeyu bakkan dem pour continuer répondre question bi ma bi nga posé moom mi nga xam ne moom moo la woo te soxla nga taxaw ci kanamam dina jël ay dispositions yu nga xamante ne foo mun munti nekk dinañ la fa jël si pour andi la te mën naa baña a doon li gën donc réponse bi comme ni ñu ko waxee fii nii euh, maître Tall ni mu ko waxee major ni mu ko waxee noonu la cest di que yoon bu la woowee da ngay jóg nga dem pour yombal ko mu gën a gaaw bu fekkente ne demuloo sa dépend maintenant de la matière bu fekkente ne dañu la ne kaay dañu lay juger bu la neexee nga ba ñu ñëw boo ñëwul dinañu def jugement bi de toutes les façons sa ñàkk teew du tax justice arrêté liggéeyam. donc mun nañu lay juger par contumace et tout cela parce que nekkuloo fa lii nii aussi moom bu demuloon te il faut que juge d'instruction bi soxla ko wax ak moom jàkkaarloo ak moom. kon dinañu def ay pexe yoo xamante ne dañu koy jëli mooy li ñuy wooyee ci tubaab mandat d'amener. Mhm. mandat d'amener mooy lan nga jël nit yónni ko ne ko damal àndil ma lële amuloo droit delloo si dellu siwaat fii ci man nag te andiwuloo li ma la yónni. Mhm. loolu mooy mandat d'amener. demal nga àndil ma lële bul dellu siwaat fii te andiwoo ko. Mhm. su boobaa donc noonu lay demee looloo tax ma saluer effectivement position bu mujj bi. avocat yi wax nañ ko li ñu ko waroon a wax. man mi personnellement ca commencement ba léegi loolu laay wax bu ma taxawoon ak moom aussi lii laa koy wax donc je crois que euh, ni mu doxalee. Euh, d'accord je crois que ni mu doxalee baax na xam naa balaa may jàll ci beneen point am na lu ma bëggoon laaj maître maanaam euh, convocation. Mhm. bi la police wala gendarmerie di indil ndax dañ ko war a bind kayit wala convocation verbale ndax loolu loi déglu parce que dañuy toog rek wala la Ibrahima Sall ko. waaw jërëjëf convocation verbale yoon diglewu ko c'est-à-dire il faut nga xam ne mbir mi du yoon mbirum administration la muy police di gendarmerie di justice c'est l'administration de la justice et puis il y a une règle qui dit que l'administration est toujours écrite c'est-à-dire foofu amul luñ ciy bàyyi maintenant xam nga des fois pour la célérité du travail pour nga xool mën nga nit oo oh, ko de façon très gentiment moi j'ai été cabinet greffier d'instruction d'ailleurs cabinet bii ñuy wax ne foofu la dossier bi nekk j'ai fait des années là-bas ironie du sort huitième huitième cabinet auparavant j'étais au sixième cabinet jamono sidjus voilà waaw yooyu yàgg na samay jamonoy greffe boobu ñoom naa naa gis ñoom malal di fa jaabante ak yëpp di ut ci ay permis di seeti xale yi n'est-ce pas xam nga dama ne l'administration de façon générale on dit que l'administration elle écrite loolu moo tax d'ailleurs major du ma bàyyi ma ma wax leneen loolu parce que bari na ay nit yuy jël seen téléphone di woo lu leen neex ñu dégg lu leen neexul duñ am fenn ñu koy jooyee parce que yoon santu leen loolu par contre des fois liggéey bi dina soxla gaaw wala peut-être demeewul noonu amul benn enjeu nga woo ni ki nag ah bu fekkee mën ngaa jaar boo mënee jaar nga jaar dafa am benn enquête bu la concerné wala dafa am di ku fa porte plainte pour boo mënee ñëw leeral ñu kooku tamit ci disponibilité am mu xool ak peut-être ak kàddu yu rafet yi mu dégg au bout du fil mën na ñëw bàyyi soxlaam gis ne goroma woo xaaral ma dem ji ko mm. mais règle bi ma lay wax te loolu mooy dëgg l'administration elle est écrite buñ boo dee ba soxla ko parce que conse convocation dafa am conséquence bu ñu boo gisee boo ñu nit jox convocation dafa am ce qu'on appelle benn récépissé bu ñuy dagg ci suuf. muy wane ni jot nga. boo gisee tey jii muy nekk étape par étape yoon dafay tere par exemple ci justice nit ñëw ñu xam adresse am benn procédure concerné ko nga jéggi convocation jéggi mandat de comparution xëy rek defar na mandat d'amener wala defar ko mandat d'arrêt yoon da koy tere. d'ailleurs la chambre d'accusation day faral di annuler ay wala di def ay main levée. Euh, mandat de dépôt parce que nit ki da nga ko def mandat dara alors que gis nga adresse am am nga ay coordonnées téléphoniques am xañ na boo ko oon mu ñëw wala nga jox adresse am servir que régulièrement mu ñëw nga ñëw tëb loolu yëpp dem ne seetal leen ma ko jàppal leen ma ko te xam nga ni kii mu ngi fii mu ngi fii mu ngi fii jàkkaarloog yow. Mm-hmm. loolu tax sàmm d' accusation déwén violation yi nga xam ne dafa nekk ci code de procédure pénale da koy day annulé mandat d'arrêt def mais levé ne nit ki génnal kaso convoqué ko mu ñëw toog maintenant boo ko convoqué nga déglu ko gis ni war nga mën a toppee benn mbir nga toppee ko ko de toute façon moom am na ay voies de yoo xam ne mën na ko exercer pour mm-hmm. que même décision ak fu mu mënti jógee yoon dafa maye droit de recours parce que loolu du lenn lu dee renforcer le droit à un équitable leer na euh, waaw li fa mën man xaw ma ko mais peut-être si on procède par hypothèse te yaakaar naa man tey jii posture bi ma toogee woon sax suñu ma doon laaj ne ma est-ce que xalaatoon nga dossier bi dina yegg si si convocation ma dama naan lu may bett lay doon parce que dossier bi maanaam c'est un non dossier maintenant suba dina dem jël na responsabilité il a pris l'opinion nationale internationale à témoin dina dem déglu juge bi xam nga foofu tamit dafa am tuuti jaaxle tuuti si dossier bi dossier boo xam te ne nii Ousmane Sonko n'est pas encore poursuivi ni visé dans un réquisitoire introductif nga ñëw taxaw convoqué ko peut convocation duñ ci wan ban qualité lañ la convoqué. peut-être à titre la wala à d'inculpé wala à titre de amul amul qualité bu ñu ciy def. affaire vous concernant. voilà affaire vous concernant dañuy def même bu dee témoin la lañ koy bu demee suba peut koy déglu parce que il n'est pas visé dans le parce que le juge jusqu'au moment où je vous parle il est saisi in rem maanaam il est saisi de fait comme il est saisi dans un dossier in personam parce que y a la dame Ndeye Khady Ndiaye qui a été visée dans le réquisitoire introductif maintenant juge bu ñëwee taxaw ne ko dama lay déglu comme inculpé dans ce cas c'est ce qu'on appelle de dresser un procès verbal d'interrogatoire de première comparution maanaam foofu da nga wax comme da nga inculpé inculpé mooy ku ñuy yóbbu kaso inculpé mooy ku ñuy wax li ñu lay toppee teg ci kaw dañ koy notifier les charges pour lesquelles il comparaît la personne mise en examen rek ci yeneen dëkk en France nga dégg ñu ne mise en examen mais dañ lay inculper l'inculpation c'est la notification des chefs d'infraction qui doivent être portés à votre en mais mais ndax ndax njortu leen la daloon Khalifa Sall dal ko parce que bu ngeen fàttalikoo Khalifa Sall juge d'instruction da ko convoqué rek décerner mandat de dépôt waaw dama ni euh, loolu leen mën euh, nekk la waaw man soo ma laajee en tant que avocat peut-être mën na am na mais man xam nga dama fi toog en tant que porte parole du Pastef ma Ousmane Sonko suba mu jigee këram dugg foofu dem taxaw ñu mu ngi dugg kasoo ce serait un scandale parce que le dossier parle de lui-même xam nga dafa am loo xam te nii tey jii ñëwaat si di si jaar ak sax mm-hmm, mm-hmm. dafay nduru leneen parce que yow Papa Ndiaye sax yow dégg naa la fi nga def si gëstu muy gëstu bu yaatu te loo xam te dem li Sénégalais yi nañ ko ba pare mm-hmm. tey jii Ousmane Sonko certes dina dem mais en man li may xaar man en tant que porte-parole de Pastef pour ne pas dire en tant que avocat li may xaar mooy mu jóge fa ñibbiwaat këram parce que pour man loolu mooy li li li am solo parce que loolu mooy sax dëggal ni justice war nañ ko mën a wóolu. parce que yu li nga xam ni lu ñàkk solo la mooy dossier boo xam xaw ma nan lañ nan laa ko mën a tuddee ay légèreté. Mm-hmm. ay dossier boo xam te nii complot bi feeñ na amatul benn charge. à chaque fois ñuy dem ñuy gën a démasquer ñi ko ñu nekk derrière ce dossier à chaque fois ñuy dem ñu gis ni dossier bi amatul benn poids. dafay dem ba pois plume lay doon mais dossier boobu bu buñ ciy xaar ñun. ñu placé ni ko su mandat dépôt. dans ce cas damay jàpp ne ce sera le scandale du siècle. d' accord loolu man dama ko xaar. d' accord Ibrahima. waaw est important déglu nañu discours bi ak une attention particulière mais damay wax ne bu fekkee ne dañu nekk ci li ñuy wax état de droit muy euh, dëkku yoon. état de droit dafa impliquer benn hiérarchie ci règle droit yi mais également légalité devant la loi et la séparation des pouvoirs. je rappelle bien que Ousmane Sonko est dans son rôle moom c'est un homme politique bu am poids bu am doole ci dëkk bi il est dans son rôle et que le droit à la résistance à l'oppression figure à l'article 2 euh, de la déclaration universelle des droits de l'homme mu nekk le premier document juridique bi nga xam ne ñi ngi ko wotee le 10 décembre 1948 ça c'est le droit parce que nul n'est ignorer la la loi et le but de toute association est l'observation de droits naturels boo demee ci article 7 bu déclaration universelle des droits de l'homme daf lay wax ne képp ko joxe ay ordre yu arbitraire ordre yoo xam ne jaarul yoon pour que ñu jàpp nit règle loo article boobu dafa wax ne yow nit kooku dañu la war a jàpp kon cela veut dire gis nañu ay ordre yoo xam ne ordre yu arbitraire la ci ci ci ci mbir bi euh, séparation de des des pouvoirs kenn mënu ko wax ci dossier kenn mënu ko wax ci dossier bi égalité devant la loi kenn mënu ko wax ci ci ci ci mbir mi parce que bi boo xoolee man dafa am ñu man ànduma APR ànduma ak Sonko je suis défenseur de droits de l'homme société civile Adji Sarr la pourquoi ci état de droit euh, ñu jël ko utal ko protection yow ay ay gendarme ay alkaati ay sapeur ñu utal ko alors que boo xoolee loi Sénégal dafa mel ni rek dañu jël loi wu France photocopier ko indi ko Sénégal kon état bi war nañu def benn système de protection pour les témoins képp kuy témoin parce que Adji Sarr victime la Ousmane Sonko victime la bu ñu waxee témoin Adji Sarr moom mooy victime mais témoin bi kan la borom salon bi kon ni ñu garantiré sécurité Adji Sarr ba xeer laal ko ay mbokkam kenn xamul fu mu nekk borom salon bi ak jëkkëram ji nga xam ne dafa génn ñu xaañ ko ay xeer kooku aussi système de protection wu témoin état bi war na yónni ay gendarme ay policier ay sapeur pompier ñu ñu ñu ñu ñu artu seen karange parce que ay témoin oculaire lañ ci mbir bi par ñoom fi ñu taxawee xëy na position bi ñu taxawee neexul état moo tax kenn proté kenn protégé wu leen xëy na Adji Sarr position bi mu taxawee neex na état moo tax ñu jox ko protection loolu nag ci état de droit bu ñu wax séparation des pouvoirs xel nangu ko loolu benn la ñaar mooy le ministre de la justice moom moo wax ne man maa bind message le président Macky Sall wax ko mbir bi ni mu demee boo xoolee ci état de droit laay wax de ma nul n'est censé ignorer la loi moom bu fekkee ne bind na message euh, président de la République te ñu wax séparation des pouvoirs le pouvoir arrête le pouvoir pouvoir exécutif moo fi ne pouvoir judiciaire pouvoir législatif ñett yëpp nekk pouvoir mais pouvoir pouvoir moo koy arrêté mais immixtion bi Ousmane Sonko wax si wax ci discours am l'immixtion de l'exécutif dans les judiciaires constat d'ordre général la ba tey ji sénégalais yi day seen xel dafay jaxasoo saabu ay dossiers yu mel nii taxawee ci kanamu justice ndoom ci yàlla Sidi Lamine Niass daf ko doon wax ne juste dossiers yi saa bu ñëwee si justice rek justice dafay aw ci parentère yi ay tànkam damm parce que doole ji muy doole ji muy ñëwee te mbir mi ñun en tant que défenseur des droits de l'homme ñi ngi ñaawlu d'abord les arrestations abusives Malal dafa ne kaso du fees mais kaso du fees par garde yi di garde kaso yi ñoom seen yoon nekku si ñoom ay mandat rek mandat de dépôt dafa am. Mhm. mandat d'arrêt am. mandat d'amener mandat d'amener am mandat de comparaître am. Mhm. yaakaar naa ne mandat yooyu. ñoom ñoo mandat judiciaire kon mandat de dépôt moom mooy li malal wax kasu du fees par kasu am na cour di garde yi seen yoon nekku si ñoom seen juróom-ñaari xel xalaatul un juge d'instruction bind këyit. ne la dugalal détenu bi nga naan kaso bi fees loolu xel xalaatu ko moo tax mu wax ne donc point arrestation dinaa ci ñëwaat li may tenir sa kaddu rek li ci am solo mooy euh, li ci gën a am solo sax bokk na ci li am solo mooy protection bi ñu war a protéger ñi nga xamante euh, dañu les personnes qui concourent à la procédure xam naa ñu préparer ma liaison téléphonique bi ak euh, maître Babacar Ndiaye nga xam ne moom mooy avocat jigéen ñooñee nga xamante ne li nga xam ne moom mooy condition de garde à vue il paraît que ci anam yu métti anam yu doy waar lañ leen dencee foofee nga xamante ni moom mooy euh, violent boobu ñu nekk donc bu liaison bi jekkee rek ñu ñëw ci moom mais en attendant am na ay action internautes yu commencé dugg olay voilà parce que question internet yi euh, am na ñaari question yoo xamante ne def naa Ousmane sonk ñëw na si mooy euh, diggante Macky Sall ak euh, Adji Sarr moom dafa waxoon ci discours am bu njëkk ne Macky Sall xam na nañ ko laaj kan mooy Adji Sarr biñ ko interrogé sur télé internationale yi mu ne loolu basses la du si dugg xamul naka la demee laale aussi mm-hmm. tey nag Sonko daal di dellu si waat gën a dëggal li mu wax ne Macky Sall recevoir na Adji Adji te waxtaan ak ñoom te am ngeen ci ay preuve est-ce que loolu mën nga ñu cee leeral tuuti. Ousmane Sonko du nit kuy waxantu. te mu waxee Sénégal yaakaar naa Ousmane Sonko ba mu fi commencé di wax ba tey. lu mu wax indi na ci firnde. bu demee ba ni Adji Sarr recevoir nañ ko pale ne benn membre benn bokk yaakaar moo ko yóbbu. am na ci ay preuve te information boobu jot nañ ko lu yàgg. xam nañ kat moo ko yóbbu. ba mu demee tamit faveur yi nga fa yi nga fa dig yëpp. jot nañ ko si xibaar. kan moo ko yóbbu comme ko ko yóbbu. waaw non dama ni kooku turam mu ngi ci biir PV bi PV d' enquête préliminaire mais est ce que mën nga ñëw ñëw ci favori. non ni. Mhm. turam mu ngi ci biir bi. Mhm. dig nañ ko xaalis dig nañ ko passeport diplomatique dig nañ ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. je pense que fan yi tey jii xaw démb. am na xibaar bu explosif bu génn buy wax ni ndijaayam yumpaañam sax moo ñëw taxaw ne ndijaayam waxal kenn. moom téléphone naan kan noppi si dossier bi ma financé la xaalis kon xam xaalis moom dugg na fa ba ta ba pare. te loolu yaakaar naa leer na sénégalais yépp wax nañ fi ba tudd fa sax ay mbir waxu waxu 200 millions yu ñu jigee yoo xam te ni ci biir témoin oculaire moo ko fekkee kon xaalis bu bëri dem na fa. sànq ba may wax ne la Ousmane Sonko du waxantu euh, am nañu yeneen yoo xam te nii wax na ko sànq ne duñ ko génn gum c'est des choix stratégiques duñ ko génn gum mais plus ñuy gën a dem rek. plus le complot les comploteurs parce que le complot est réel maintenant xam nañ ko mais les comploteurs plus ñuy gën a dem plus ñuy gën a démasqué plus ñuy gën a dem plus sénégalais yi naan yuuxu di jëpp fu ñu ko fogul woon parce que yaa ngi fàttali ko ci début ba am na benn trou avocat bi ñu ci tuddoon kooku dem di njëkkante naan way bokk ma si ree damay porter plainte mais ba ñu demee ba mu avancé ba SMS du complot fuité je pense que kooku déggatoo ko m day porter mm. te kooku SMS bi jógee ci moom ba dal ci beneen avocat je pense que source n'est pas plus plus digne et plus sûre que cette information. mais dans l'intérêt du débat est-ce que doo tudd ay tur ñi ngay wax. ñi ngay wax ma nga man tamit xam nga man kilifa laa. xanaa ñemewul li ngay wax maître. non du question lañ ñemee ak ñàkk a ñemee mais dama ni tey jii ku lii bi nga xam ne moo nekk à la disposition de la presse. tudd nañ fa koo xam jël jëli xale bi kooku tudd na turu papaam c'est pas une pure coïncidence tudd nañ ci benn salon sax de couture bu ñu foofu la Adji Sarr doon doon fréquenter. fi mu daan toog si biir salon de bi di wax ni man may maase Ousmane Sonko man man maase Ousmane Sonko ba xibaar bi fa la jub ma waxal ma dolli la ci leneen ci biir salon de boobu am na benn jour boo xam te ne Adji Sarr toog na benn yoor-yoor sol yëre yi rafet kenn ci kilifa salon bi laaj ko ne ah tey li nga sol rafet na fan nga jëm mu ne ko pale laa jëm mu ne ko la ngay def pale mu ne ko noonoo dama leen a gëm dafa waa APR yi laa bëgg a escroquer loolu la ko wax. waa APR yi laa bëgg a nax. parce que dama leen a digg dama leen a gëmloo ni Ousmane Sonko daf maa ëmbal bañ ni ma léegi boo lii de bu ko président jotee dinañ la jox xaalis bu bëri nangam nangam nangam nangam te wax loolu kilifal te ñun yor nañ témoignage boobu yeneen dina génnaat xanaa xamoo dossier bi nii euh, nañ ci tey nañ ci tey parce que à chaque fois qu'on avance on sent la mais da Dieu xam nga kenn xaaru woon SMS di fuité te SMS bi yaakaar naa Sénégal yëpp jot nañ ci ba ñuy tëkkalee usman Sonko ak DSK maanaam Dominique Strauss-Kahn naan li ñuy li ñu bëgg mooy stabilité dëkk bi ñu bañ koo perturber mais traîner Ousmane Sonko dans la boue mooy seen objectif principal may wax ne dañuy juum rek Ousmane Sonko ku taxaw ne di nga traîner dans la boue yaa ngi nax sa bopp fi mu taxaw dafa dëgër ci dëggu la taxaw si jub la taxaw li liñ ko fi sosal lépp bu doon dëgg la heure bi kenn waxatu ko sénégalais war nañ ko ginnaaw mais chaque jour ñu gën a sos sa Sénégal di ko gën a bëgg sànq wax na 90 pour cent des sénégalais mais en réalité ji boo génnee képp koo laaj la mu Ousmane Sonko jamono ji moo ne sama xel moo ne sama xol chaque jour ko laaj mu ni on derrière Ousmane Sonko parce que en réalité mosuñoo dajek lu ñaawee nii si complot mosuñoo dagoon lu ñaawee nii si sos surtout nag nga def ko gor te gor nee nañ bala nga kaa yëngal rek nga sosal ko loo xam ne. waaw kii nag Pape Makhali Bey dama la koy ñaan ah. maître mu ngi ci buumu jokkoo bi. ok bu ñu euh, dellu si waaw kon ñu jël euh, maître Babacar Ndiaye avocat à di avocat bi nga xamante moom mooy taxawu jigéenu Pastef yi nga xamante ne dañ leen jàpp jamono ji maître maître Ndiaye ah ok donc xam naa ñu ngi ci euh, mhm. dina dina ñëwaat léegi. ulay ma bàyyi la waaw kii euh, Pape Makhali Bey la tudd euh, nee na dafa bëgg comme maître Tall en tant que porte parole u Pastef mu wax lu tax Ousmane Sonko ci discours yi mu fi def yëpp dellu siwul si réellement li xew digganteem ak Adji parce que lu nit munti wax munti wax moom ak Adji Sarr rek ñoom ñoo xam lan moo xew te gis nañ ne édifié wul nit ñi leeralul nit ñi lan moo xew réellement parce que dafay ne rek complot la mais ba léegi waxul ni bi ndaw si génnee ci saal bi man ak aji ba xam provoqué na ma ba xam nu mu tëddee am nañu relation consentie waxul ci leeralu ci dara daal. Euh, waxal loolu ulay mhm. mhm. may leeral. Mhm. je pense que loolu ku taxaw ne Ousmane Sonko leeralu ko c'est parce que da ngaa suivre Ousmane Sonko développement yi. d'accord Ousmane Sonko suñu njëlbeen dafa am. waaw jokko bi euh, maître Ndiaye dem yaa ngi en direct ah. waaw. waaw yow yaay avocat jigéenu Pastef yi nga xamante ni yoon teg na leen loxo ndax mën nañu xam euh, ci yan condition lañ nekkee garde à vue fële ca commissariat. waaw d'abord damay waaw merci merci maa ngi maa ngi maa ngi lay nuyu te di nuyu téléspectateurs yi lay seetaan yëpp waa te sama confrère boobu maître Ablaye Tall di di ko jaajëfal waaw di euh, nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp voilà si question bi nga ma posé il faut que ma commencer si njëlbeen ci ndaxte femmes yi mooy les femmes de Pastef dañu euh, vendredi nañu demoon euh, benn euh, def seen déclaration ci seen télé boobu sax nañ ko defee woon bu ñu jógee foofu ñun ñi puisque def nañ seen déclaration bu pare nañu dox nànk dem seeti seen leader Ousmane Sonko de président Ousmane Sonko pour pour pour fettilil ko seen seen cofeel aussi ngir euh, taxawu ko aussi ndax situation yi nga xam ni biñ koy traversé bi ñuy yeggee nag ba di waaj yegg ci kër gi la leen euh, commissariat bu le commissaire bu plateau bu bu jëppal jëppal du moins di leen euh, dogale leen bëgg a tas seen jotaay bi c'est li ñu ko waxee ñun nag defuñu dara dañu jëm suñu kaw leader te loolu seen kër leader te loolu yoon terewu ko foofu la leen commissaire bi nag jàppee jël leen ñoom ñëpp leen téye leen boobu léegi nag biñ leen téyee di leen toppee ay attroupement sans autorisation sur la voie publique du moins ak menace de trouble à l'ordre public ma dafa ne nag la xam ne ay matuñu sax une vingtaine de treize personnes presque dajale ko ànd dem ngir seeti seen leader te loolu am nañ ci droit loolu yaakaaruma war nañ ci leen si mën a toppee ay attroupements sur la voie publique ak euh, ak ak ak menace de trouble à l'ordre public parce que loolu suñ ko doon def rek je pense que kon si marché yi daañ ko arrêté arrêté jàkk yi arrêté lépp waaw dama yaakaar ne nag si dëkk ba nga xam ni droit nañu nekk dëkk ba nga xam dina rek se respecté ak yelleefu nit ñi waaye depuis quelque temps gis nañu régime bi fi nekk moom ku wax rek wala ku euh, lépp loo def rek mu arrêté la te loolu gis nañu vraiment euh, ñoo ngi lor ay nit ñi xam ni defuñu dara euh, waxuma si loolu nag ñu dem tey si tey boobu euh, depuis boobu ba léegi nag waaw depuis vendredi ba léegi tey ji tey la tey la mardi presque boobu léegi ñoo ngi leen ñoo ngi leen ñoo ngi leen tëj te man jàpp